yàlla ngi wax ci alquran yéen góor ñi maa ngi leen di dénk ci jigéen ñi mooy waa wa aachiruhunna bil maaruf jëflante leen ak jigéen ñi ci teraanga moo tax yonente ne ma akramahunna illa karim wa ma ahanahunna illa laim kenn du teral jigéen lu mooy ko tedd am teraanga xam lu baax nee kenn du toroxal jigéen lu mooy ko torox xamul teraanga xamul lu baax ndax koo gis ci àddina jigéen mooy yaayam kon nag tëral jigéen rek bul weranti xamal ne ku am teraanga la fa yàlla moo tax mu mën a teral jigéen jigéen kenn du ko toroxal ndax dafa néew doole ñu ngi ko bind ci faaruk càmmooy ak aadam ba tax faw nga comprendre loolu di ko yërëm xam ne mooy suñuy yaay yal na yàlla defal jàmm jigéen